Serif ba nga tëdd faas sa weddu wi waaju ko jël sa weddu xalala mën wattu wul di la fa léngalab la baale ko xutbul maktum mam Cheikh Tidiane mam Cheikh Tidiane taajul maam Cheikh Tidiane. juddam dafa rëy. maam Cheikh Tidiane. juddam dafa rëy. martabaam beneen doyu ni. xaatimi wax na ni moom. maam Cheikh Tidiane. taajul aarifin. Cherif ba nga banyak dikejauh banyak dikejauh ak pexe di ñëw na si yow loo falang falang dina ñëw gaawal daw te tuubi ko xutbul maktum maam seeti jaan maam seeti jaan taajul aarifiin sharif baa nga tëdd